léegi jur yi ñu yoroon ñu ngi ñu ngi ñu ngi loof ñu buñ bu ñu amul lu leen jàppale dañuy dee ci sama xalaat man am na ñu ma ko waxal am na comme lu demee ni maa ngi doon discuter ak benn waaye mu ñëw di naan ministre dañ ko war a wàcce ma ne ko yow da ngaa rek ministre bi lii mu def moo tane ci ñun parce que bu ñu bàyyi woon moo Mauritaniens yi ak malien yi dugal fi ay xar xar yi fees dell ku ne am xar ci na ko bëggee bu ñu paree suñu mbokk yi nga xam dañuy sàmm ak bekkoor bii ñëw ak nga xam ne yàlla ji tawul nga xam ne xar yi ak nag yi ñu ngi sonn ci àll bi am ñu ñax parce que mënuloo yor ay quatre cent cinq cent têtes de bœuf ak yor deux cent têtes de de mouton nga di leen dundal gouvernement bi lañu yaakaar di xul vivre de soudure nañ nu dimbale nañ nu dimbale nañ nu dimbale gos bi yor ministère bi nag pël la moi je le connais bien man def naa bulal man baayam laa xëy na war na ma xam bu ma gisee mhm. parce que maag baayam Kelli Sadio ñoo doon ànd boobu bi may def bulal il avait deux il a été très lucide daa daa dugal après mu bàyyi pour permettre da nga am ñi nga xam ne ñu ngi yor ay jur ñu mën ko jaay. moo tëj frontière nag nit ñi kat du tëj sax mais frontière bi ñi ñëw sax waruñu parce que naar bu naar dañ daan jógee Mauritanie di di sàmm di di lekk suñu eh, herbe bi di lekk suñu ñax mi bàyyi si jaay ñu lu seer du ñu fi jënd sax kilo suukar ñi bëgg xaalis bi mais ñun dañ doon seet suñu bopp rek. man maa ngi vivre léegi ak ak ak ak le le le les les sàmm la ak yooyu xam naa li ñuy def naar yi ak Mauritaniens yi ak ak Maliens yi dañuy ñëw fi jël suñu xaalis dem du ñu fi jënd sax kilo suukar yi ramasse des milliards ici yóbbu ko dem ñun toogaat ñun au détriment de nos de nos propres parents bon ren li ñu def nii comme que ñoom ñu ñëw parce que am na lu dañ leen tëj sax dañoo xoox mënuñu ñëw parce que mënuñu doxee Mauritanie ba fii di sàmm di ñëw am jur gi amul lu mu lekk ko def sa jur dee ay ay calcul la rek. calcul boobu kon yaakaar nga ne dal na. ah calcul yi was wi dimbale nañu ci ndax fi mu ne ñi yoroon ñaari téeméeri xar juróomi téeméeri xar ñuy xar yaa ngi commencé loof nga jaay leen tamit gi récupérer de l'argent. jaay leen ak prix yu cher nag. ah, ah mais mais ah lu bëggoon dañu ñoom itam. non mais fii réew mi toll nii ci boppam jafe-jafe dund beeg yooyu ngeen jël cher yi xar bu ndaw mbortu ñu ne la cinquante mille wala soixante mille. mais daf xam nga calcul nag boo koy def da booy booy joué da ngay joué rek da ngay gagné wala nga perte dañ naan bàyyi ak jur gi borom jur bi mu la koy xontal bañ ne suba la tabaski yow doo jënd benn saaku ngooñ saaku ngooñ di jar 4000 francs saaku ripaas di jar 10 000 francs doo ko jënd yow nga toog a toog a toog ba ñu laa fay nga daan yow coppati xaram rek dem. ah loolu am na solo mu nekkoon benn partie ci découverte tabaski mais. na xar manqué na. Mhm. mais tout le monde rural bi nga xam dañu naroon nëgë ni ngay jënd jiw ñu ngay jënd ceeb mm. ah, xar yaa ngay dee nag yaa nga boori doli ñu ngay amul lu ñu lekk na gouvernement bi daw gouvernement bi li mu yor kës ni ko xam ne euh, demagul mu dugal ko fa mais on va on va périr man su ma la am naa benn sam benn xarit ñu sama xarit pël la mu ngi nekk booru njogob moom mu nga màngoon gannaaw doli mais bi ma ko wéyee ci tabaski gi naan ma ñetti xar laa dese tubaar kàlla sama xar yëpp jaay naa leen parce que jaay xar yi ñu loo fi téye sa xaalis bu xaraamaatee nga jënd reconstituer sa bétail moo gën mu ne ma lii bu amuloon daa gis pël bu xaru noonu la ma ko bu lii amuloon da gis ko xaru parce que da nga deelee quatre cent têtes cinq cent têtes bëy dee kooku da ngay da ngay da ngay da ngay jërëjëf mbokk yi doon seetaan. 28 ah. pro ñu ngi am mbégte eh, incha allahu rabbi 28 pro nag équipe boo xam ne nii équipe locale la boo xam ne ni maanaam eh, li ñuy def eh, ñëpp a koy seetaan au niveau international Serigne Mbacke Fall Talla Samb Bekay Ndiaye Seydi Diakhaté moo nekkoon ci présentation bi docteur ñu ngi am mbégte bu baax a baax ci dalal bi ñu la dalal ci nangu gi ñu ko nangul tamit di leen dig daje ci yeneen jotaay